il a amené ici 18 médecins. Il a circoncisionné 100 de nos enfants. il ne voulait pas que nous mourons. Goumbala, Abdoulaye Ndiangal, vous avez réussi parce que après hier, vous avez pris en charge un enfant qui est malade. Elle doit payer 3 500 francs. Vous nous avez appelé, moi et et les autres. Pour qu'on allait là-bas, on dit que vous avez pris en charge l'enfant. on vous remercie. Aujourd'hui, c'est le samedi. Ici à Tiawan, on est à l'école 4. Une consultation gratuite organisée par Yelmin Gumbala ici à Tiawan. Tous les Tois-Noirs, Yelmin Gumbala, on vous dit merci beaucoup. Mais on dit aussi merci beaucoup à Abdoulaye Ndiaye Ngalgo. Vous êtes des gens irremarquables. On vous dit merci beaucoup de la part de tous les Tivaouanois, de la part de la famille de Seydou Hadji Malik Sy Al Hadji Malick Diop ak Mame TV euh, on donne la parole à Yélimine Goumbala parce que li ñu def rek dañu am yéene euh, commencer d'abord par sant yàlla am yéene parce que li ñi ngi ci juróomeelu édition yàlla dimbali ñu chaque année ñu indi ay médecins yu jóge Dakar yu nekk Tivaouane ñu dajale leen euh, wut ay garab yu bare bare bari indi fi ay rajo koo xam ne am radio ñu radio la mais spécialiste yep ñi ngi fi indi leen Tiwaawan pour que ñu fajj wa Tiwaawan loolu nak pour man sante yalla la bu la yalla dimbalé lu tuuti li nga man nga mën ci jël sa wërsëg euh, dimbali ci ay doom adama je pense que loolu ñun sante yalla rek lañ ci def di remercier wa Tiwaawan parce que mënon nañu ko xalat mënon nañu ko def mënon nañu ko jëli mënon nañu ko indi te wa Tiwaawan duñ ci jariñu mais Euh, démb man sama fierté la trois heures du matin am na ñu fi ñëw bi may yegsee ay six heures du matin ñi ngi leen fekk ci salle ba la ñu tëdd di nelaw donc loolu sant yàlla la bi ñuy julli fajar ba pare euh, école bi fees na dell donc mooy wane ne besoin la mooy wane ne nit ñi soxla woon nañ ko te loolu je pense que doy na sant yàlla yàlla dimbali ñu nag ñu teel a commencé huit ba léegi mi ngi ci ku faju dem Euh, donc am na aussi ay xale yi nga xam ne ñi ngi leen doon xarafal mooy camion bële ngeen gis ci biti ka camion bi euh, ay bloc opérateur moo ci nekk xale yi foofu lañ leen di faje yàlla dimbali nañu dañu prévoir lu man ñaari téeméeri xale mais alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu inscrire ba démb ñu yem ci téeméeri xale ak lu topp mais ñoom ñëpp léegi ñu jeex yàlla mi ngi ñu dimbali ñu ngi leen di jël en charge euh, loolu nag comme ni ma ko waxee Tiwaawoon moo ko moom parce que ñun Tiwaawan lañu la ñu xam Tiwaawan la am lépp loo xam ne ñi ngi koy wuti lépp loo xam ne ñi ngi koy sonn pour Tiwaawan moo tax donc du ñu def lu dul sant yàlla di remercier képp koo xam ne population Tiwaawan di ci jiitool suñu xalif général te Tidiane yal ko yàlla may wér yal na yàlla guddal fanam yal yàlla sàmm ko ak képp koo xam ne dafa soxe ko ci famille Seydi Hadji Malick ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni euh, bés bi awma ci woon sax kàddu ndax yàlla daf ma boole ak ki nga xam ne mooy Ablaye Ndiaye euh, yàlla boole ñu ñuy ànd ànd boo xam ne ànd bu rafet la ñi xam dinañ xam li may wax yàlla mayewu ma euh, yenn kàddu yi mënu ko jël ci mbooloo mais moom xam na man xam naa daf koy wax souvent ne min ak man politique boole wuñu li ñu boole ëpp na loolu ñi ñu jege xam nañu ñii ñu sori peut-être mën nañu njort wala ñi ñu jege xam mais li ci nekk dëgg-dëgg ku dul moom ak man ak sunu borom mi ñu tiim euh, je pense que xamu ko di ko remercier nag muy nit ku nit ku baax parce que man xam naa ne bonuma mais boo ma nee diw baax na rek xam naa ne baax na mën naa seede ci moom parce que Ablaye dama koy fréquenté ci biir waxuma li ñëpp xam de waxuma li ñëpp fekke waxuma li ñëpp yëg mais ci biiram laa laa nekk donc mën naa seede ci moom lii nit ñi gis ci moom ci biti loolu moo nekk ci moom ci biir ci yar ci yiiw ci mbaax des fois mu def loo xam ne yow mi nga xam ne sa yoon newu ci du sa poos sax sa da am ñeewante ci moom foofu la foofu la baax mën a yem donc man bu ma nee lay Ndiaye nit ku baax la xam naa li may wax nit ku baax la kon nag mënuñu lu dul ñaanal ko yàlla sàmm ko yàlla yokk ko yàq wéral ko li mu yéene ci Tiwaawan yàlla dimbali ko ba mottali ko barki dem damay seede ci rajo bi ci projet bi nga xam ne mi ngi koy def dafa am équipement yoo xam ne daf ko war a jënd indi ko pour Tivaouane équipement yooyu daf ko war a jënd pour yi mu tabax yëpp mais bépp bu mu jënd rek ci bato la ko teg bato bi indi ko mais bi muy jënd bi Tivaouane daf koy yàkkamti ba nga xam ne dafa jël avion fay ko dugal ko ci avion bi pour matériel bi ñëw foofu la yéene mën a yem te loolu mu def amul dara luñ ko cay tegal ci la mu ci waroon am donc alalu boppam la yéenam la yéene bu mu am ci Tiwaawan kon nag yéene boobu mu am ci Tiwaawan ñu ngi koy ñaanal yàlla dimbali ko ba mu mottali ko parce que xam naa ne bu mot bu yéene boobu bu matee Tiwaawan dootuñu jooy dara ndax lu mu am Tiwaawan la ko yéene lu mu man mi ngi koy def ci biir Tiwaawan suñu borom mi man nag yàlla na ko kattanal donc bés bi moo ko moom bësam la kàddu yi ma ci jël dañ ma ko forcer rek mais wax dëgg yàlla man waruma ci woon a jël kaddu ndax bés bi bésam la. ànd nawle wax na ko bërki dem ak ànd defar benn la mhm. peut-être que problème mu identité la mhm. mais amatul xaaj ak seen mhm. nit ñi sax xàmmeetuñu nit ñi sax xamante lii dañ ko def parce que chaque année dañ koy def mais ñaari ñaari ñaari mbooloo yi dootul ñaar benn la ñu nekk ci kilifteefam parce que nit ki di ngeen ànd ci politique ngeen euh, dawal tuuti nga gis loo ko xeebee mais alhamdulilah Ablaye bi ñu yàlla booleeg moom ci politique ba léegi bës bu jot dañ koy gën a naw bés bu jot dañ koy gën a respecté donc loolu moo tax ànd bi ñu ànd euh, képp ku ñu bëgg daal bëgg Tiwaawan nañu ñaanal yàlla sàmmal ñu ànd bi fi nga xam ne bëgg ñu fi dem yàlla ñu fi yàlla eggale donc Ablaye sa bés a ngoog Ablaye micro yaa ngoog Ablaye waa Tiwaawan a ngi nii waxal ak ñoom parce que man bés bi awma ci kàddu jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk Tiwaawan maa ku nek ci turam ak santam defe naa ni kaddu yu du bari comme niko ko yelemin waxe rek dañuy ñew pour and ak moom gungé ko ñew pour féliciter ko ñew aussi pour ñaanal ko yalla ndax bi duggé fi ak lima gis ci mbolo sama yaram dafa daw mhm. te lii ku bàyyiwul xel yàlla bàyyiwoo xel say mbokk mënoo ko donc yéelamin ñu ngi lay ñaan bëpp ñu ngi lay ñaanal bëpp dërëm boo xam ne ñàkk nga ko ci journée tey bii yàlla na la ko yàlla fulal ba doo ci yëg dara dara lu dul bànneex ak mbégte lii dafa war ku nekk ndax li danaan bala nga naan naam da fay nekk te nit loo am am te amoo wér amoo dara donc su xalaatee jàpp journée tuddee ko journée de constration gratuite di ko def tey di cinquième édition bi te boobu ba léegi delluwoo si gannaaw benn yoon boo yokkul wàññiwoo donc yéen man en tout cas kontaan naa si yow kontaan naa aussi si ni nga doxalee. te li kep ko xamne ne ku yeewu Tiwaawan nga ngay kilifa ci dekk bi ak ndomba tànk bu meuna am warna meuna tal autom fekk li fi sante la gërëm la ndax li du affaire politique ndax du affaire parlo da nga woote wote Tiwaawan yep ñew mën na wax yamul sa Tiwaawan département bi yep la wax ñep ngi fi ndax li nga andi fi mën na wax ni lañ nit ñi daw ci cet hôpital mom nga andi fi. donc hôpital nga tek fii école 4 bi donc yow Lamine ñu ngi lay sant di la gërëm comme ni nga ko waxee bi ñu yàlla boole ba léegi man aussi personnellement rëccu ma lu ma doon am xamante ak yow ndax li ñu boole dafa romb cadre politique dañuy waxtaan ci biir ak ci biti du toog journée te déggantooñu lu ëpp ay ñett ba ñeent yoon du ñu toog journée te duñu gisante su ma nekkee Tivaouane yooyu nekk ba wi kenn jeex ñu àndoo ñibbi donc lolu limu waxon waxoon serigne sëriñ lay réitéré fi ñun and defar ak and nawle dama ni ben kër la boole nan wala boole tu lolu lay wax lolu la gëm donc lolu bu amé sa taxaway moko waral njabot bi ma yàlla boole su ma ak ñom si politique ñumay gungé gunge yu ñu sawar aussi gungé ma si sa mbiru bop ta non la aussi sa njabot sawar gunge la ci sama mbiru bopp donc loolu yalla def la bi may ñëw may and ak mam Ngouda and ak Abdou Sall and ak Lamina and ak Matar Diouf mom aussi tamit di kenn si ñun mm-hmm. am taxawaay bop aussi dimanche mi ngi japp journée bo xamni ni si yéene boo xam la mëno bëgg na xamal nit ñi ka sama ak yow comme mburu ak soow la mm-hmm fassiyene yene sargal la ba dimanche mo war fas dem wuy donc mata ñu lendi lay sant di si gërëm baax baax. lundi lundi le 25. di sant aussi aladji mi nga xam tamit sunu kilifa la di ñu gunge ñu jappalé and ak mbay sambu and ak ñom Amina wa and def yepp ngi fi sax su may lim si damay juum en tout cas Yélamine ñu ngi lay sant bu baax Serigne mbay aussi mi ngi fi Abdou Sall ñepp ñu ngi fi. ñepp defar yepp ñu ngi fi. donc lii daal vraiment yàlla na yàlla jàppale la yàlla taxawu la képp koo xam ne yàlla dogal na aussi nga ñëw fi am jàngoro yàlla na yàlla dimbali ñu ba lii yële mi yéene si bisu tey bii boo fiy jógee yàlla may la nga am wér wér wér gu yaram bu mat sëkk ak barke képp andi jàngoro yàlla na ko yàlla faj ci barke sallallahu alayhi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah